yéen a ngi teewlu info 221. kon di am mbégte di ko rafetlu ndax mënoon ngeen guddi na kenn ku ci nekk dem doxi ay yitteem te bu boobaa it dañu xam ne ji am na fi waaye temps moo amul. leneen li ci des ñiy sant Serigne di ñaan Serigne Mountakha Bassirou suñ borom yàggal ko fi lool te wéral di ñaan Serigne Abo Baraka Serigne borom yàggal ko fi lool te wér ko di ko ñaanal suñu Serigne suñu yaakaar Cheikh Abdou Fatah moom Serigne Fallil bu ñu amee sañ-sañ wala ñu am fit ñemee toog fii di wax wax dëgg yàlla suñu Serigne la ndax moo ñu ko may ndax li tax ma ne moo ñu ko may mooy moom ci wàllu boppam ak fi jamono toll te képp koo xamante ni yaa ngi jóg. di jëm si ci yoonu murit wala ngay jëm si ci kër suñu fam da ko bàyyi xel loola nag aw fitama ak jomam akum xelam ak bëggam suñu fam moo ko may loolu ba tax addina sépp ko ngir loolu noonu ñaareel ba damay am yu bari may wax bala dugg ci sama bàyyi ko PDS gi nga xamante ne ni 2003 ba nag ni maa ngi fa woon doon milité muy jafe-jafe yi nga xamante ne nii Ndindi ak li ko wër ñu ngi koy dund te président Ousmane Sonko ñu yaakaar ko lool lool ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la réew mi di jànkuwanteel ci moment bi ñu toog nii. 1960 ba léegi Ndindi gii ñu dëkk nii amul citoyen deuxièmement li fi Serigne Fall bàyyi woon ci loo xamante ni état moo ko fi def daanaka moo fi des moo fi nekk ba tey. amul benn état bu fi jaar boo xamante ne nii gis nga jafe-jafe Ndindi wala nga xool ko wala nga yër ko wala nga defoon secte daw Ndindi wet ci déparé boo jëmee ca wet ga ci des mën ngaa daw 5 kilomètres te doo génn amul benn route secondaire boo xamante ni am ci benn ci ci dëkk bi muy daggee ci arrêt ci ci virage bi dem ci arrêt bi doomu moo fi nekk ci route secondaire boo xamante nii jaar na ci biir dëkk bi te dëkk bi quartier boo ci jëm am na foo xamante nii mënoo faa yegg ak ndax suuf kon nag li dëkk yépp di soxla nii di soxla na ñaareel ba benn forage moo fi am sëñ mu dugg si jàng yàlla na yàlla yokk ay leeram moo ko fi bàyyiwul dëkk bi manqué ndox lool ba ci wax wàllu màggal dañuy am jafe-jafey ndox tey boo gisee may lim loolu yaakaar ñu ko ci kii fi ne dañ ko yaakaar ci président Ousmane Sonko mi nga xamante ne ni projet bu am solo bi nga xamante ne dig nañu boo ñëwee ci quartier yii ñu tuddee euh, Tawfekh quartier bu ko ëpp amul ci nit dañu am problème mu ndox chaque jour nga jëm ci côté waalo gi dañu am problème mu ndox chaque jour sanc siñ motala nit dong moo fi am ndox tuuti te day xor kon nag ay forage dëkk bi yitte woon na yoo xamante ni dëkk bi dana ko mën dana ci mën a màndal di màndal euh, lu jëm ci biir dëkk Touba. ñaareel ba yoonu Touba boobu wii sëriñ su bari waa kër Sëriñ Fallu yu bari am nañ fa ay daara am nañ fa ay tool waaye mënuñu faa dem ndax yoonu ko ñoom ay jafe-jafe yoo xamante ni depuis bi fi sëriñ Fallu bàyyi koog léegi yoon moo fa nekkoon moo nekk ba nëgg loolu jékkul jaaduwul te ñi koy seetaan. ñu ngi seetaan loo xamante ni lu doy waa la ñaareel ba li ñu war a waxaat yoon mi nga xamante ni moo jëm Kéré lu mat 2000 élèves ñooy jóge Touba ak Mbacké ak ci njënd gi jëm di jàngi Kéré Mbaye amul benn yoon bu baax boo xamante ni mes na ko jaar dem Kéré Mbaye gone yi léeg-léeg ñuy yor yoon léeg-léeg ñu daanu fi léeg-léeg ñu def ay sob léeg-léeg léeg lu ne am te président de la république Macky ci seetaan loolu te xam ko te jaaroon bu may fàttaliku ngay sëy sama rakk moo njëkk a dalal Macky Sall fii nii du boori 2 heures de matin kër Baye Cheikh Nassé boobu Macky Sall ci jafe-jafe yi digganteem ak Abdoulaye Wade mu dalal ko fii nii gone yi tett ko jàppale ko ba tey yàlla dogal mu doon président de la république amul benn pexe amul benn moyen amul benn ndimbal boo xamante ne dimbale na ko waa ji loolu nag wante ni ñoo war a xam ñoom ñooy kan di góor ñi di jigéen ñi. ñu bàyyi di leen ay bourse familiale ñu bàyyi di leen naxe ay bu élection jubee ñu daw songu leen ak weccet ay juróomi téeméer ak tisat ak xaatum képp koo xamante ne nga loola sa ngor yaa ngay sonal sa njaboot yaa ngay sonal sa borom kër yaa ngay sonal say dëkkandoo yaa ngay sonal Serigne Mountakha mi nga xamante ni moo yor dëkk bi te bëggul kenn ku tumuraan loola nag Sénégal yëpp war nañ ko daw dimbale Serigne Mountakha ndimbal yi nag ni ñu koy dimbalee mooy taalibe bu nekk nekk ca la nga war a nekk te gëm ne Serigne Mountakha moo fi Serigne Touba damay gis ay nit ñu jël presse bi jël réseaux sociaux yi kenn fu ci nekk ñu naan sëñ bi lii bi ma euh, Ousmane Sonko ñëwee fii def lii def la loolu dama jàpp ne yëpp Serigne Mountakha te it doyatil yoonu murid suñ nee ci sant mi nga bokk dëkk ci dëkk bi xam réalité yi dëkk bi di doxe Cheikh Thioro yi nga xamante ni mooy député assemblée nationale bokk ci sëriñ si bokk ci ñi ci gën a sell sa laay ndax gone la du tux du naan du mooy yàlla te mi ngi ci li war a nekk tey xam na lan la ko sëriñ Tuubaa jëriñ lan la lan lan lan li mu bokk sëriñ Tuubaa xam na ko bu baax ndax mënoon naa jaay ngorom comme ni ko ñeneen ñi yore sant bi defee dem fekki parti au pouvoir ñu di ko jox ay moyens mu di ko lekk bu xëyee tëdd këram bu ngoonee mu war otoom génn dem doxi soxla te moom lañ gën a soxla ci ñooñu ñu koy defal ndax ña koy defal ku ji gaaroon ak gelo sa kër bu subaa kon nag li am solo da am solo man di depuis 2003 laa doon milité parti démocratique sénégalais ñu indi ñu fi section spéciale fii ci Ndindi sept section moo amoon département Mbacké ñu indi ñu section spéciale ñu di ko coordonné doon ci liggéey boobu ba tey li tax nag ma jël samay bagage ci parti démocratique sénégalais du luñ ma wax du luñ ma def du loo xamante ni dama ko fa dégg te neexuma mais nag damaa gis sëñ Cheikh Thioro ak parti Pastef Pastef 1960 ba nag ñu dëkk bi mosut am civilian mu ñëw jël sëñ Cheikh Thioro def ko député jël bureau mii nga xam ne moom moo nekk sëñ Cheikh mu dëkk Ndindi kon nag Pastef jëfi desee la tudd Ndindi dara Ndindi ko desee li am solo te am solo na bokk Ndindi yëpp góor jigéen mag ndaw ak parti bu waaye mën a bokk a ak foo mënoon di milité Serigne Cheikh Thioro nee na mi ngi lay tàllal loxo ngir ànd bokk liggéey bokk Pastef te euh, ñaan parti bi jëm ca sama bàjj na nga nee ma tàllal loxo muy bàjj la sëy waaw parti démocrate Sénégal la la nekkoon maag moom ñoo bokkoon liggéey Pastef mii depuis mu duggee ci dëkk beeg léegi ndindi gi doomu na Pastef musta gañ ay élection lu élection yi pass ndindi depuis 2012 élec deuxième tour la ko beneen parti mu te gagné bu dul PDS 2012 deuxième tour la ko beneen parti mu ci gagné budul PDS ba nag ni PDS moo ko doon gagné bis naka tey nag danaa leen assuré ne PDS ñàkk na ko beneen parti budul PDS ñàkk na ko parce que moo fi taxaw ñoo ci tàmbali leneen li ñu def mooy dama am xool bu set guy ci xale yi nga xamante ne ni man ci sama wàllu bopp dañu maa songu na ma ak lu mën xew ak loo mën a dañu lay jël nga ànd ak yow dem Pastef. Ah, ñu ko ji. defal lu ma leen lu ko jàpp waxuma leen lu ko jàpp mënuma leen lu loo waaye nag kenn ku ci nekk. yaa moom sa bopp ñoom ñoo ñëw ci man proposé ma lii na man noo mën a def dañu ànd ak yow dem ba seet ndax yaa ngi koy loolu moo waral sama ànd ak sëñ Cheikh te te sëñ Cheikh it bañ ànd ak léegi ci jikkoom laa ànd ak moom muy jikko bi rafet bi ma woon ak taxawaay bu mu am sama diggante moom daf ma wax carrément Abdou Fatah du ma sa sëriñ du ma doxalee sama diggante yow sëriñ ak taalib du ma doxanteeg yow sama diggante yow ak politique damay doxal sama diggante yow mag ak rak ngay sama mag may sa rak lépp loo xalaat te muy jëriñ dëkk bi di jëriñ waa Ndine soo ma ko waxee lu ma ca mën danaa ko def lu ma ca danaa ko jéem kon nag waa Ndine suñu caax nag moom it jëjële daal leneen li des mooy nañu góorgóorlu te tax bu ñu amee jom te am fulla am fayda dootuñu ànd ak benn parti bu dul Pastef. buntu familial yi nag commencé woon naa ko li tax danaa ci indi leeral pour ci bala maa daane liñ lay jox muy vingt cinq mille par trois mois wala trente mille par trois mois lépp loo xamante ni nit da koy dundee yokk na cent pour bu ñu la joxee. vingt cinq mille yi boo ko doon calculer bu mat sauvé euh, cinq cent franc bu dee trois mois yi. juróom fukk yooyu nag bis bu set loo jënd na nañ ca cent franc da nga koy calculer nag mun ko wàññi woon dugal ko feneen koo xamante ni ndaw yi dañ ci mën a liggéey di jëriñ seen i ndey di jëriñ seen i baay di jëriñ seen i borom nañu mooy itam naraate naraatekat yi nga xamante ni. dañ leen a jël yabal leen ci dëkk bi jox leen te gëmuñu seen bopp ndax doomi góor góor la war a doon doomi jullit jullit la war a doon doomi taalibe taalibe la war a te am na ci loo xamante ni tant que mi am fii ci dëkk bi suñu doye bi la ñuy gis ak suñu ñàkk fayda te département bépp laa koy boole mooy ma a Macky Sall heure bu demee ba élection ji mu wut ay ndaw yabal leen ci dëkk bi jox leen ay moyens yi di ko xëpp suñu jigéen ñee suñu góor ñi ak ñi nga xamante ni dañ leen a xiifal ba ñu xiif ngir bëgg leen koo jëndee na ngeen ko moytu te moytu loo ku leen ko moytu loo ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama yaay ki ne yàgg te muy ku baax a baax a baax a baax bisimilah. laaj bi mooy que ni li li li actuellement li actuellement ci jamono ji mooy que ni dañuy wax ne Pastef ñoom ñooy ñàkk war ma kilifa yi rawatina xale yi la ñuy wax nag tey ay xel yu bëri teew nañ fi kàddu yu ñu mel dañ koy dëggal wala dañuy toog. waaw daanaka mën ngaa xaw a toll sax ndax dañoo wax ne Pastef xam nga dañ koo wax rek luy wax day am firnde. wax day am firnde man gis ma ku bokk Pastef koy ñàkkee war mooy kilifa bi boo déggee moo wax la loolu damaa dégg Serigne Cheikh Thioro te mooy coordonnateur départemental ñu laaj ko loolu mu ne man naa ñu doon dugg mu ne ko ban kan moo bokk Pastef ku ngeen mas wala ngeen xam ko mu am kàddu Pastef ku ñàkk a tey ba nag yi tontu am loolu tax ma yaakaar ne ginnaaw ay wax la da ngay delluwaat comme ni ko suñ Cheikh waxee woon kooku si ñoo ko waxoon ñu ko.

toog naa Ousmane Sonko toog ci barab damay bañ tudd tur na comme ni ko Birame waxee léegi bi mu ñaanloo ba pare mu ne kilifa gi bëgguma ñaanluma benn sëriñ ànd ak man ci politique ndax parti boo gis parti boo gis ci réew mi am na fa ñoo xamante nii ci kër bokk nañ ci kër sëriñ te parti bee la ñu parti bii la ñu milité te boo waxee sëriñ ma jàppale ma ci politique mu jàppale la ci ci ay taalibeem wala ñu bokk ca moom seen gis-gis du parti boobu ak réeroo mën na am seen diggante loolu ku warmaalul kilifa doo ko ko wax te li gën a jafe ci homme politique yi nga xamante ni dañu am dañ fi am ci réew mi président Ousmane Sonko rek nga fi gis mu waxal la ci diini alxuraan ay baat yoo xamante ni firi la ko te du bëri. ñeneen ñi ci des ñëpp koo ci jox ne ko jox ko mu na ko benn aaya ci alquran boo paree yow moom nga wax boo boo boo xamee da nga ko lisee daal ndax bu ma ci fekkal ci benn bopp. waaw. li tax ma ne la lawoon woon ku jur doom da nga bëgg mu ku jur doom da nga bëgg mu wóotu PDS jippi ma naan ne ko jege département Mbacké jox ko kenn kon nag bu demee ba li xew sensé président Ousmane Sonko ñëw fi gagné conseil départemental xam nga ne électeurs yi changé nangu ak ku bañ waaye électeurs yi changé moom la boo leen programme bu leer woon diine ju mat woon leen njub bu da defe nañu Mamour Sarr semaine ba la ñëw na recommandé fii ci parti Pastef ndax demu leen ba ñàkk yaakaar ci Karim Wade bi ngeen doon xaar boobu ba léegi. waaw loolu dañ ci am kontaan trop ci tontu ci xam nga militant buñ koy bàyyi du gagné baaso bu ko parti bari bàyyi du gagné baaso te fii wax naa la ne la depuis 2012 ak léegi deuxième tour la ko Macky Sall mas a gagné Pastef ñuy wax mosu koo gañ kon PDS bàyyiwul maa bàyyi PDS mosul.